grâce à vous, chers amis Internet, on est suivis, on est vus un peu partout à travers le monde. Encore une fois, merci de nous avoir reçus sur ce nouveau entretien d'édition spéciale sur www.snclick.com. Je m'appelle Souleymane, je reçois Monsieur Madjo Khorn Beng, responsable politique Azidjon du département de Dagana et président Arwa 3D, fille Dakar. base ici ci dak ci ci Grand Yoff nekk fi boo koo xamante ne leader la ci lépp lu muy def nit ñi ràññeekoo ci wàllu politique bi muy def tey ñu am mbégte ak kontaan dalal ko fas yéene waxtaan ak moom ci parcours am ci jaar-jaaram ci gis-gisam aussi comme nekkoon na euh, coordonnateur ci élection yi nga xamante ne passé nañ ko ci parrainage ak yooyu yëpp ci département bu Dagana donc lan mooy gis-gisam lan mooy xalaatam aussi ak projet yi nga xamante ne gis na ko ak waxtaan ak moom ci li nga xamante ne aussi tamit ci wàllu Dakar dem dikk parce que it fa la nekk ñu ràññee ko ci lool lool lool lool ci relation ak euh, Moussa Diop mooy DG euh, bu Dakar dem dikk loolu yëpp danañ ci ñëw ak moom ci gis-gisam ak xalaatam ak ci réew mi ak fan la toll ak yan mooy mébétam ci parcours politique maa ngi lay nuyu di am ak kontaante Euh, ci ma jàkkaarloo ak yow. waaw asalaamaaleykum euh, waa Sénégal maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku si nekk sa tur ak sa sant di sant yàlla di am contentement dajeeg yéen ñii di waa www senclip point com waaw man maay majoo Xor Mbeng comme ni nga ko waxee rek nekk président ARWA 3D association des ressortissants di Waalo de Dakar Dem Dikk nekk aussi responsable politique de AG Jotna au niveau du département de Dagana. avec Maître Moussa Diop, président age et directeur général Dakar Dem Dikk. ok monsieur xoor tey dañu ñëw fas yéene waxtaan ak yow d'abord tey suñ lay wax ci sa parcours kat mooy Madiaw fan la sokkee ko fan la bàyyeekoo ak nan la def ba arrivé ci politique. waaw comme ni nga ko waxee rek Madiaw xoor mbeng mi ngi dëgg cago tey bu ñu waxee cago village la bu nekk dans la commune de Mbane nekk ci département de Dagana foofu laa jàngee ba c ma ñëw. Dakar bi ma ñëwee dakaar fi laa amee samay diplôme yëpp ba dugg Dakar dem dikk bi ma jógee université dugg Dakar dem dikk en 2007 nekk fa un responsable di fa def syndicat en même temps bi maître Moussa Diop ñëwee en 2014 si la engagé wu politiquement ànd ak moom parce que nekk na DG bi nga xam ni depuis 2014 ñun dañu gis yokkute bu bëri bëri à Dakar dem dikk te avant même deux 2014 Sénégalais yëpp gisoon nañ ni Dakar Dem Dikk problème yi mu amoon mais c' est grâce à maître Moussa Diop ak confiance bu président Macky Sall am ci moom ba tey Dakar Dem Dikk agsi fii tey sama ambition ci politique mi ngi commencé ci bi mètre Moussa Diop jëlee biisu élève Dagana bi réfectionné ko ma gis ni ku am ambition la ma jiite association des ressortissants di Waalo ma xam ni li mu defal Dagana defalu ko lii lycée Dagana commune kese mais département bi yëpp la ko defal si la àndeek moom dem ci noor bi jaar ak moom Richard Toll yóbbu ko Thiago bi ma dëkk jóge fa dem Dagana jaar gaaya pour wan Sénégalais yi wan waalo waalo yi ni leen kii ku jar jàppale la parce que comme ambition la ci biir loolu laay sante yàlla di ko ci gërëm loolu moo ma gën a motiver ci moom ma dugg ci politique bi mu duggee ci politique ba léegi nag wax dëgg yàlla ñu ngi sant yàlla bu baax a baax parce que tey avec maître Moussa Diop gis nañ ay yokkute yu bëre si jeunesse su waalo waalo yi parce que bi biñ ko joxee Dakar dem dikk présidence Macky Sall jox ko 475 nouveaux bus lu mu njëkk def d' abord mooy créer ay nouvelles ligne partout dans la région de Dakar créer ay lignes express yu jaar par péage bi mu paree mu def recrutement bi nga xam ni wedd gis bokku ci tey jël na plus de 1600 personnes yi nga xam ne tey recruter na la à Dakar Dem Dikk te ci biir recrutement boobu yaakaar naa ni ba tey déggoo ci benn werante wala benn wax parce que ni mu ko defee moo jaar yoon tey boo demee dans tous les coins du pays am na ku fa jóge di liggéey Dakar Dem Dikk moo tax ñu ni Dakar Dem Dikk c'est le Sénégal en miniature te donc patrimoine national bi nga xam ni bu ñu la ko dénkee danga ko war a sellal te gis naa ni def na fa lu li mu fa war a def ba tax na ci biir recrutement boobu mu doon ku am ambition lu nit ñi doon wax dina am ak du am mooy ay receveuse nañu liggéey ak Dakar Dem Dikk amoon na fi autant sax mais bi mu ñëwaatee lay recruter ay receveuse dugal leen ci biir jël ay conductrice lu mësul am Dakar Dem Dikk tey boo demee Dakar Dem Dikk ay jigéen ñu mën góoram fa di dawal kaaru Dakar Dem Dikk yi yamul ci loolu mu recruter ay handicapé parce que ay jamono handicapé yi dañ leen di gis que ñoom dañu war a yalwaan rek non si le maître Moussa Diop jël recruter ay handicapé jox leen seen chance ñuy liggéey di yóbbul seen waajur parce que ay Sénégal lañu mënoo ko ndir ki nga xam ne tamit bi mu jógee ci loolu tey boo doon xool ay temps booy voyager horaire ngay dugg mu metti lool maître Moussa Diop ci visionnaire am mu créé Sénégal Dem Dikk dans toutes les régions du Sénégal tey foo manti dem ci adduna si Sénégal tey biche ñu ngi fay dem ay biche climatisé la yu am solo kon tey accident yi wàññeeku na yamatul foofu mu créé AIBD dem dikk bi aéroport bi tijjee gis ngeen AIBD dem dikk am na ay ligne classique 401 402 403 404 405 yomb lool yamul ci lool mu créé aussi ay euh, bus express yi nga xam ne tamit de HLM Grand Yoff la à Diass muy AIBD Thiès AIBD Mbour AIBD kon donc mu nekk nit ku am vision vision ci li muy def ba tax na man personnellement je m'engage pour faire de la politique autrement avec maître Moussa Diop au nom age jot na une alternative générationnelle ci loolu laa dem ànd ak moom depuis référendum yi bi mu jaaree ca yàlla may ñu ndam ñu jóge ci référendum ñëw si législatif yi yàlla mayaat ñu ndam avec la coalition benn Bokk Yaakaar tey bi ñu ñëwee si présidentielles yi commencé parrainage la engagé wu avec toute la jeunesse avec tous les responsables yi nga xam ne tey bëgg nañu développement ñu dem dugg ci biir waalo dans le département Dagana yàlla def ma nekkoon le coordonnateur ànd seeg responsable yu bëri yàlla dimbali ñu ñu am fa ay ndam ma jox ko ay parrain yi nga xam ni tey weddi gis bokku ci te loolu yëpp ma doon def sotti si ak def si la rek parce que coalition benn boo yaakaar la bi ma teelee comprendre que politique da am base si laa daw samay mbokk waxtaan ak samay pap waxtaan ak samay yaay waxtaan ak samay rak jëluñu politique bi def ko métier parce que ñun dañu am liggéey di liggéey politique du métier képp ku koy def da nga war am liggéey ci loolu laa motiver woo ak moom vraiment dem wax ak nit ñi pour jàppale le président de la république Macky Sall ci biir loolu tey gis nañ ni résultat yu am solo lañu am foofu à Thiago dans la commune de Mbane et même dans le département de Dagana parce que liggéey nañu ak le coordonnateur de Benno Bokk Yaakaar du département Madické Mbodj donc ñu gis ni yàlla may nañu ndam ba tax na man sama ambition ci politique mooy fexe ba développé waalo fexe ba jeunesse waalo liggéey fexe ba waalo jëm ca kaw ca kanam parce que gis nañu tey dans la commune de Mbane euh, metti na trop waaw metti trop parce que tey booy xool ci biir commune bi lu fa manqué bëri na instant bi boo demee de Richard Toll à Kër Momar amul tali tali bi fa nekk dañ koy ñaawlu di ñaan yàlla que régime bii nii yàlla defaroon ñu un bi nga xam ne dina permettre ña fa nekk gis seen bopp ci état Sénégal parce que man sama ambition ba tey ak maître tey ni mu moderniser le transport à Dakar Dem Dikk ci Sénégal tax na ba tey ma am envie am ay minibus dans la commune de parce que tey ñoom ay Sénégal lañ tey renouvellement parc automobile boobu ñuy def dañ ko war dañ ci war a boole commune de Mbane parce que tey boo fa demee ni ay yupp yaa nga fi gis oto yi nga xam ni amul benn sécurité accident yëpp mortel la te ma gis ni visionnaire la may ñaan yàlla ci moom tey ñu def renouvellement parc automobile boobu mën a dimbali askan boo fa nekk parce que son nañ trop commune de Mbane maître Moussa Diop def na fa li nga xam ne tey avec la jeunesse parce que recruter dafa ay nit am na fa ay conducteurs ay receveurs yu fa jógee ñëw liggéey Dakar dem am CDI loolu yokkute la kon loolu tamit dañ koy ñaanal yàlla que yeneen jeunes ñëwaat gën a liggéey ci biir commune de Mbane loolu lu ma doon wax la ci maître lu ma gën a motiver ci moom la pour mooy def politique autrement boobu à Mbane parce que gis nañ ni aussi tamit ni euh, marché yi amu fa dans la commune boo demee Thiago tey amul marché te loolu dafa ñaaw dafa ñaaw agriculteurs yi muy baykat yi soon nañ trop dañuy bay ba saison jeex du ñu am dara te war na leen mën a dimbali defal leen ay financement comme ni ñu defee aménagement bi jàppale aussi sàmmkat yi jàppale nappkat yi jàppale aussi les enseignants les élèves santé bi tamit sooxee na fa trop parce que tey ñun boo xoolee foofu à Thiago euh, poste de santé la am te war nañu dépasser loolu war nañu dépasser loolu war nañu am un médecin bi nga xam ni tey day jàppale ñi nga xam ne ñoo fa nekk di ñaan yàlla ay ambulance médicalisée jàppale aussi jeunesse bi ci sport parce que ba jusqu'à présent amuñu stade bu tax ñuy wax stade te léegi ak jamono bi fu mu toll war nañ am ay stade yu baax yi permettre nit ñi mën a gis seen bopp ci état du Sénégal loolu laa am lu may wax. Moussa Madiaw yow da nga nekkoon coordonnateur département de Dagana. donc ñu gis la aussi tamit ndaw yi nga xamante ne wuy si nañ la rawatina ci cago bi nga dëkk mobiliser ndaw si yëpp ne leen kaay ñu ànd jàppale monsieur le président loolu bi nga koy def ak actuellement nii fii lan nga ci doon séntu ak loolu ci doon xaar est-ce li la ndaw ñi li ñu ci doon xaar dëgg dëgg dëgg gis nga ko. waa comme ni nga ko waxee rek ñun suñu engagement ci politique ak maître Moussa Diop au nom de AG Jotna pour jàppale le président de la République Macky Sall lenn lu dul développement wu Sénégal bu ñu waxee développement nag dañuy commencer ci gox yi parce que nit ku nekk fi nga dëkk rek nga mën a gën xeex nga mën a am base pour mën a jàppale le président pour mën a jàppale jeunesse bi li may def ci politique ak maître Moussa Diop au nom de AG Jotna ci biir département bi ci biir commune Mbane li mu ciy xaar mooy ay retombées yu am solo ci jeunesse bi maanaam ñu jël leen ñu liggéey jàppale baykat yi sàmmkat yi nappkat yi dimbali tamit enseignants yi nekk na li nga xam ne lu ma yitteel la beneen bi tamit mooy tali boobu ma lay wax ni la depuis bi ñu juddoo ba léegi depuis Sénégal sosoo ba léegi foofu mosul am goudron boo fay jaar sax sa yaram day daw poussière bu metti moo fa nekk te loolu dafa war a jeex te ñuy ñaan la président de la république mu dimbali ñu ci loolu jàpp lañu pour ñu am tali parce que lu soxal nit ñi la pour nit ñi mën a am seen santé parce que tey bu loolu amul santé du am pour nga jógee Thiago dem Richard tool c' est tout un problème kon donc ñu ngi ciy xaar président pour mu dimbali ñu ci loolu di yaakaar tamit si maître Moussa Diop li mu def ci ndaw yi mu dolli ko. parce que tamit ñu ko joxee Dakar dem dikk mu war a jël dugg na Thiago dugg fépp dans la commune dugg ci département bi jël fa ay nit kon donc loo tamit ñi ngi xaar maître que gën a jàppale jeunesse boobu pour ñu mën a gis seen bopp ci ci ci politique bi nga xam ni moom la ñu defal président de la République ba yàlla may ñu ndam. tamit ñu gis ne euh, Thiago foofu commune de Mbane maire ba fa nekk aussi ñu gis ne yéen ñaar xaw leen euh, mënul la accepter wala yaa ko mënul accepter. parce que jàpp na yow adversaire am nga te yaa ngi def liggéey bu am solo te it dafa mel ni ci 16 am bi ngay viser. waaw comme ni nga ko waxee rek fii moom euh, ragal féete day xañu wërsëg waaw man samay ambition politique dama ñëw déterminé parce que bi ñu ñëwee ci parrainage bi laa ñëw indi sama âge jot na muy alternative générationel jàppale président Dahal Biré maire bi nag man dama ko respecté loolu yàlla moo ko teg suñu kanam mu nekk suñu maire nekk apéris Macky Sall teg ko fa mu koy jàppale kon dañu bokkoon liggéey di liggéey rek mais gis nañ ci biir commune de Mbane man li ma jàngat ci parrainage bi lu bëre ñu ngi sooxee parce que tamit nit ki soo mënul da ngay baax te moom si boppam nee na mënul parce que tey moom nee na mënul kon nag ku mënul da ngay bàyyi li fi nekk nag mooy ñun suñu ambition mooy dañu bëgg a gox boobu ànd ak ndaw yi nga xam ni tamit am nañu xam-xamu téye commune ñu ànd ak ñoom liggéey pour commune bi jëm ca kaw ca kanam parce que commune boobu gis nga booba léegi foo toll di dégg suufu mbaan bi coow li bëri na dara doxu fa parce que tamit il faut ñu wax ko tey mënuñu nekk dëkk mbaan nekk ay sénégalais depuis Sénégal sosoo ba léegi nañu am sax benn tali bi nga xam ne tey war nañ ko fa mën a jaar pour am plaisir mën a sentir ni ñu ay sénégalais lañu. loolu liggéeyu président de la République la mais tamit maire bi am na ci rôle bu mag parce que tey boo xoolee tey oto yi fa nekk tamit ci côté transport bi dara doxu fa transporteur yi fa nekk danga leen di yërëm oto yi nga xam ni ay bant la ñuy teg di nit ñi di stock mais loolu amatul ci àdduna kon ñu bëgg lu bees tax nous voulons un sang neuf. kon tey ay jeunes lañ ñi nga xam ne man je prends mes responsabilités et m'engage avec toute la jeunesse waalo waalo de la commune de Mbane pour le changement dafa nekk li nga xam ne tamit lu jot la santé bi des na baykat yi son nañu nappkat yi son nañu sàmmkat yi sonn nañu man maa ngi woo ñëpp di leen xamal ni leen commune de Mbane lii jot jot na nag ginnaaw dee di talal loxo ñëpp que nga nekk si opposition ak foo mënti nekk li passé passé na présidentiel moo jàll léegi local leen jëm local yi nag. du président Macky Sall mooy jàpp si loxo kenn la votéelal diw nit ñi ñooy tànn seen jiit nit ñi nañu yeewu yéen waa waalo laay waxal surtout waa Cago te mee gaaya yéen laay waxal yeewu leen ngeen xippi seen bët waa commune de Mbane yëpp lii jot jot la changement jot na ñu liggéey waalo waalo jëm sa kanam kanam. aussi yow yaay euh, président wu Arwak bu Dakar Dem Dikk Arwak trois de Dakar Dem Dikk donc muy association lan mooy Arwak. waa Arwak 3D soo ko déggee mooy association des ressortissants di waalo de Dakar Dem Dikk. tey soo gisee Arwa ñu créé ko au temps de la Sotrac Aros la woon mooy les ressortissants waalo waalo de la Sotrac bi Sotrac tëjee ñu ñëw dakaar dem dikk man bi ma ñëwee en 2007 2008 laa créé Arwa 3D avec euh, les ressortissants waalo waalo yu nekk ci biir entreprise bi. bi ñu koy créé c'était juste pour jàppalante entraide solidarité parce que gis nañ ni comme ñun ñu ngi liggéey war nañu mën a boole suñu doole pour jàppale suñu rakk yi ak suñu yaay yi nekk fële ci euh, waalo. donc loolu moo tax ñu créer ko mu doon ni association bi nga xam tamit association bu am solo la parce que gis ngeen ni chaque gàmmu muy Dagana muy Cago muy Gaaya dañuy dem def suñu participation ànd ak suñu ay mbokk di ci sant maître Moussa Diop bi nga xam ne tamit c'est grâce à moom que Arwa di jël ay car di ko yóbbu partout dans le Waalo donc loolu tamit motivé na ma lool Arwa 3D association bi nga xam ne laa lu ñu bokk la ñu si woo ñëpp parce que ay projet am rek ci Waalo Waalo yi parce que tey ñi ngi préparé ay euh, magasin ici à fii à Grand Yoff ak Kër pour importation du riz vallée bi donc ceebu arwa boobu c'est bientôt mi ngi ñëw si marché bi kon arwa nekk na association bi nga xam ne daal association bu am solo la buy boole mbokk la bi nga xam ne dañ koy def pour développement waalo pour jàppale askan wi bu ñu def jàngat aussi ci sa parcours tuuti politique dañ naan yow nitu benn nit nga mais bu am ñaari base muy Grand Yoff depuis wax nga ko sànq bi ñuy waxtaan depuis plus de vingt cinq ans yaa ngi dak yaa ngi yaa ngi Grand Yoff am fi base politique bu bu bu am bu am doole yaa ngi dégg bokk ci ay mouvement aussi yu am doole tey euh, ban statu nga nar a mën a xaar tey ci politique tey est-ce bëgg nga nekk maire Grand Yoff est-ce bëgg nga nekk maire Dagana est-ce que bëgg nga nekk Euh, maître Moussa Diop DG DG Dakar Dem dëkk tey def la adjoint wala tey nga revendiquer dara comme ni ko gars bi defee euh, politiquement. waa comme ni nga ko waxee rek bu dee côté Grand Yoff bi aussi mooy lim mu la wax rek politique base la te base mënoo ko am foo amul jàmm man j'ai fait 25 ans Grand Yoff dëkk naa Arafat tey maa ngi siti millionnaire donc soo gisee ma engagé wu tamit ak âge jot na au niveau de Grand Yoff parce que maître Moussa Diop fépp foo mënti nekk rek da ko foo mën a jàppalee. te AG Grand Yoff gis nañ ni euh, base la bu am solo parce que gis ngeen ci présidentielle yi caravane bi maître Moussa Diop def à Grand Yoff caravane bu mucc ayib parce que li tax ñu am loolu dañ ko liggéey avant parce que tey AG Grand Yoff dafa yaatu ndax def nañ ay cellules yu bëri partout HLM Grand Yoff dem xaar yàlla monté fa ay cellules tey boo gisee sax cellule xaar yàlla boobu sax cellule bu am solo la parce que tey seen président bi di Mouhamed Diémé mi ko jiitee tey mu nekk un jeune engagé ànd seeg ay jeunes yu am solo pour jàppale maître Moussa jóg kon donc Mouhamed dama ko si remercier di ko ñaanal yàlla que c'est un jeune bi nga xam ni ku am ambition la ci politique d'ailleurs loolu moo tax tey ñun Grand Yoff tamit comme li nga wax politique la rek politique moom ay ambition la waaw da ngay def li nga mën rek yàlla moom mooy fay waaw te comme ni ma ko waxee rek mooy politique autrement laay def man tey dëgg la politique ñu ngi naan ay intérêt la mais nit ki li la li ngay am ëllëg yow yaa koy liggéey yaa koy ñax yow yaa koy gëm man dafa am lu ma gëm que yàlla rek moo fi nekk tey su may ànd ak maître Moussa Diop bëgg naa dara ci moom parce que su ma nee bëgguma dara ci moom loolu mënta nekk mais nag dinaa ànd ak sama ngor parce que âge jot na ànd ak ànd ak yi la tudd ànd ak gore ñun dañoo war a ànd ak gore maanaam tey ànd ci ngor ba lépp li nga xam ni nit war na ko mën a am mu doon mérite parce que maître nekk na nit ki nga xam ni yaakaar naa du ma toog fii sax di ko wax moom lan lay def ak lu mu dul def parce que ku am ambition la te ku xam lu muy def la lépp lu mu def rek am na fu mu ko teg loolu la amoon bu dee côté mbaan bi comme ni ko waxee aussi tamit ci côté mairie bi accès guñu foofu actuellement dafa am benn combat bu taxaw mooy la commune de dafa nekk commune bu yaatu bi nga xam ni plus de 106 villages ak ay amoo ma dëkk Thiago gis ni tey euh, si découpage administratif bi tey ñun euh, Thiago war na am commune man sama combat day war avant les locales mooy la commune de Thiago ci commune de Thiago parce que Thiago village phare la bu nekk ci département Dagana village la bi nga xam ni village yu njëkk am ay réalisation ci Sénégal la tey boo demee am na histoire sax bi nga xam ni duma mu ci sore mooy histoire gaynde boobu ngay dégg tey ñu naan ñun nous sommes des lions du Sénégal Senghor a fu duggoon bi fu duggee di génn ñu tànd ko piège tey benn gaynde feeñu ko ci loolu la inspiré woo ba bi muy créé def ñu ay lion kon tey Thiago histoire la bi nga xam ni tey Sénégal war nañu xam cago war nañu xam lépp te mu nekk village bi nga xam ni tamit tey dafa taqaloog téméy taqaloog gaaya mu doon vraiment base bi nga xam ne daal képp ku bëgg dara waalo boo fa ñëwee di nga am li nga bëgg parce que village phare la bu nekk ci dans la commune de Bane nekk ci dans le département de nekk ci la région de Saint-Louis danga ñoo cax nee nga maire bi excès ko mais sa xel a ci quoi danga ñoo cax nax ñu rek mais y a pas de problème amul problème dañ la koy jégal xëy na peut-être bëggul wax ne dafa bëgg a nekk maire ak yooyu noonu mais tey euh, yow sa ànd ak euh, monsieur euh, maître Moussa Diop nga xam ne liggéey na comme ni nga ko fi wax def na changé na ak yooyu yow déjà sax li la poussé nga ànd ak moom c'est parce que liggéey bi mu def la yokku emploi yokku ay bus yu liggéey def travail bu mucc ayib ci Sénégal rawatina foofu ci Dakar dem dikk nga ànd ak moom boobu léegi mais liggéey boobu noonu yëpp ñu gis ni dafa am benn affaire boo xamante ne amoon na fi mooy ay wax yoo xamante ne waxoon na ko xëy na peut-être mu am benn malentendu ak sénégalais yi mu a yàq liggéeyam moo ne moo fi waxoon ni ah d'après ci élection yi nga xamante ne jub na ko ci mu ne li Abla li li li Macky Sall yëpp li Macky Sall defal waa Touba yaa ngi dégg donc à chaque fois muy perte gis-gisam la. donc moom ci xelam ci xalaatam autoroute Ila Touba donc mën na ko def autoroute Ila Fouta donc mu nekkoon nag ay jiixi jaaxa indi woon ay ñool ñool ci diggante Sénégalais ak ñu bari rawatina communauté mouridisme boobu noonu yow lan nga ci wax en tant que jege ñaaleem lan moo ci sa point de vue ko waaw comme ni nga ko waxee rek xam nga nit ku nekk rek yow yow yaa xam li nga bëgg tey euh, wax jooju man duma ci sore te di xamal Sénégalais yi rek ni leen ni leen. wax ju bari ji jaru ko maître Moussa Diop moo waxoon moo ñëw jégguluwaat kon nañ jàpp ni dafa juum parce que gis nañ ni àdduna yàlla rek moo dul juum te ku nekk si ñun tamit am nga li nga xam ni tey war nañ la ko mën a waxal kon comme moo waxoon juum di jégalu kon war nañ ko jégal parce que ci wax boobu rek waruñu ko juger que moom noonu la mel parce que lu mu liggéey si Sénégal tamit nañu wax te dëgg li mu liggéey Sénégal ñëpp gis nañ ko man du ma toog fii naan def naa deful liggéey na dafa juumoon ci wax jum na kon na Sénégalais xam ni liggéeykat la président Macky Sall tamit xam ni moom liggéeykat la te xam na ko parce que président du cuune tey bi ñuy ñëwee ci coalition Macky 2012 Moussa Goré bàyyi ko fauteuil bi jàppale ko ba ñu fal ko Macky Sall président Macky moo ko jëliwaat Europe indi ko dégg ko Dakar dem dikk te nee naa la bilan maître Moussa Diop at Dakar Dem Dikk rek man moom laa doon campagne te loolu doy na la fal falaat Macky Sall kon na président xam ni maître Moussa Diop liggéeykat la te mérito na lu nekk tamit parce que tey Dakar Dem Dikk nu meloon avant 2014 dem ba travailleurs di cotiser di jënd ay pièces de rechange tey boo demee biir Dakar Dem Dikk yokkute bu bëri moom foofu ba ci liggéeykat yi am na tey Sénégal Dem Dikk am na AIBD 1400 employés nga jël ko. bentoo ñu naan Afrique dem dikk kon ku mel noonu soo ko amee ci réew li am solo mooy nga jàpp ko parce que réew mee ko ñor réew mee ko intéressé Sénégal yi nag wax moom mënta ñàkk boo defee ñu wax boo deful ñu wax mais nañu xam ni rek yàlla moo fi nekk nit day juum nañu jàpp bokk ndey ak baay bokk Sénégal liggéey Sénégal parce que tamit Sénégal liggéey ko moo am solo bu amee jàmm ñëpp am jàmm bu fekkee Sénégal doxul tamit ñun kenn du dem kon képp fu waay nekk muy maître Moussa Diop que nga nekk directeur rek. wala ministre ak ku mënti doon jàppale ni li ñu la dénk rek mën nga si jëriñ réew mi mën nga si jariñ ñëpp kon loolu laa am si loolu moo waxoon di wax man en personne que man Madiaw Xor Mbengue nekk responsable am AG au niveau du département Dagana ñi ngi tuub di jégalu waat di xamal Sénégalais yi ni leen ay doomu aadama lañu nañ ko rafetal moo gën leneen liñ ci wax amul solo nañu liggéey te fonk réew mi te ku nekk nag xam nga yow sa bopp kon li am solo daal mooy nañu liggéey te jàpp. Sénégal jàppale président de la République. ok sa bilan ci ci ci ci ci ci campagne yi say soo doon def benn bilan ci campagne yi nga résumé ko Macky Sall gis nañu d'habitude président yëpp bu ñuy dem ci élection dañu am directeur de campagne mais Macky amul directeur de campagne mooy wàcc sur le terrain ak ay gaayam fu nekk ñu dem fa porte ak porte cest à tey loolu yëpp ngeen def ak déguerpissement bi ngeen jël système bi ngeen utiliser yëpp tey soo doon def bilan ci campagne bi lan ngay wax. non su ñu doon def bilan ci campagne bi mooy mooy liñ li ku nekk def nga li nga war a def rek xam nga tey président de la tey ñi ko jiital a ko gën moom mënul fal boppam nit ñi ko jiital dem ci terrain bi ñafe liggéey ànd ak suñuy mbokk fal ko loolu moo ñu war dafa wàcc ci terrain bi bilan bi moom sant yàlla parce que tey li amoon solo mooy am nañu ndam lees nag mooy ñu liggéey réew mi bokk réew mi di waxaat opposition bi kër ñun duñu ay noon ñun ñoo bokk Sénégal tey képp ku fi nekkoon candidat di xëccoog président Macky sa carte d'identité moo ci nekk kon actuellement ni li am solo nañu xam ni yàlla mooy fal yàlla moo jiital président Macky suñu kanam ñun ñëpp nañu ànd ñu wóolu ko ngir mën a am ndam ngir Sénégal am ndam loolu laa doon am lu ma lay wax métti woon na trop nag campagne moom du yomb parce que tamit balaa nga naan naam danga fay nekk te il faut ñun ñu delloo si waat suñu xel jàppale suñu bopp gëm ni politique laal comme ni mu koy waxee rek politique du métier du diine nañu gëm ni politique jaamu yàlla la ba ku nekk suñu bu ñu la joxee ay responsabilité nga assumer say responsabilité yaatal xam ne li ñu la dénk am na ku ko yoroon te danga koy bàyyi jox ko keneen kon li am solo mooy nañu jàpp bokk ndey ak bàyyi gëm Sénégal gëm réew mi yàlla jàpp lañu ok nañ gëm Sénégal gëm réew mi yàlla jàppale ñu mu nekkoon ma Madiop Khor Mbengue nga xam ne responsable politique et si tamit moo nekk président Arwa. 3D bu Dakar Dem Dikk tey ñu amoon mbégte ak kontante dal ak moom fas yéene waxtaan moom euh, mais monsieur Mbengue tey li ma lay laaj mooy dafa am wax joo xamante ne ni mu ngi def polémique ci réseaux sociaux yi ci média bi mooy lan euh, remaniment bi nga xamante ne ni jël nañ du baax nga xam ne finance la def moom la jàng ñu jëlee ko fa jël Abdoulaye Daouda Diallo léegi teg ko fa gars yu bëri ñu ngi naan ah, dañu jàpp ne dañ koy rey politiquement Macky da koy daaneel politiquement ak yooyu yow lan sa xalaat ci loolu. sama xalaat ci loolu mooy nit ñi nañu bàyyi wax ji te liggéey. amul njëriñ gis nga nit xam na lii jàng na lii man sama directeur général avocat la deful transport te tey mi ngi nii def lu am solo ci Sénégal ba ñëpp teg seen bët kon ku mu manti doon ak foo manti nekk na gëm ni liggéey lañu sant nga liggéey réew mi man du ma dugg ci ay kii warul am lii warul am lale li ma amal solo daal mooy ñun ay Sénégal lañu ànd nag sama président parti maître Moussa Diop pour jàppale askan yi pour jàppale samay mbokk surtout waalo bi ma moo tax ma taxaw di xamal sénégalais yàlla xam ne képp ku ñu jox post de responsabilité nga assumer ko gëm sa bopp loolu moo si am solo mais ñu bàyyi werante bi ak wax ju ñaaw ji que kii warul am lii warul am leel fii ku nekk dara jomb la ci àdduna tey man mii di wax yow samay ambition sax damay ñaan yàlla nekk président de la République du Sénégal sama ambition la kon donc tey ku mu doon tamit keneen na nga gëm sa bopp xam ni ndaw lañ te ndaw mooy yoru réew ëllëg ñu jàppale ñi fi nekk te yàlla tax yàlla mooy ñu ndam lan ngay denk sa jege ñaale soit ñi nga xamante ni ñu ngi ànd ak yow boobu ba léegi rawatina cago boobu nga dëkk foofu ca waalo ak waa waalo yëpp ba Dagana ak yooyu fii Grand Yoff ak yooyu lan ngay wax ci sa gars yi nga xamante ne yéen a ngi bokk combat bi ànd jàppale Maître Moussa Diop. waaw comme li may wax rek ci Grand Yoff laay comme ni nga ko waxee di may remercier ñëpp ñi nga xam ne tey ñu ngi doon liggéey ci biir campagne bi muy waa AG Grand Yoff parce que tey vraiment liggéey bu metti woon la. ay risque kese la woon ndax gis nga Grand Yoff autant boo waxee ñu ne Grand Yoff dafa am danger te pourtant jàmm rek booy dox su jàmm yàlla dalay jàmmal kon donc maa ngi remercier ñëpp ñoom Mouhamed Diémé di remercier Abdoul Aymoun Daaf moom moo coordonné woon Grand Yoff ñoom El Hadj Abdoulaye Fall Abdou Aziz Mbow ñoom ñëpp tous les responsables yi nekkoon AG Grand Yoff maa ngi leen di gërëm di leen sant ndax yàlla may ndam su ma jógee Grand Yoff damay dem Thiago mooy sama village comme ni ko waxee dans la commune de Mbane li ma amaloon solo mooy dem naa politique naa nekkoon naa ci coalition bi maa ngi remercier ñëpp toutes les militantes et militants yi nga xam ne tey ñi ngi bokk âge waalo jàppale woon maître Moussa Diop pour réélire le président de la République Sall maa ngi leen di sant di leen gërëm di leen wax ne leen politique autrement yokkute kese la gisuñu ci leneen kon donc di remercier waat aussi tous les responsables politiques yi nekkoon foofu ci biir coalition boobu parce que am na ay kilifa yu mag yu ma àndaloon ku si mel ne le premier adjoint au maire di sama papa Idrissa Fall maa ngi koy nuyu di nuyu aussi tamit le responsable APR nekk conseil départemental Abdoulaye Diop ñooñu ñooy ñi nga xam ne ñoom laa àndaloon ci biir Thiago di remercier waat encore tous les responsables politiques tous les maires département le coordonnateur Madické Mbodj waat encore vraiment Euh, Mouhamadou Makhtar Cissé kooku moom mention spéciale parce que mérit la ministre wu Waalo la ministre wu Sénégal la parce que Sénégal la nekkoon dañu jox ko pétrole ak énergie kon maa ngi koy félicité bu baax a baax a baax di ñaan yàlla di woo Waalo Waalo yëpp que ñu ñëw ñu jàppale ko jàppale képp ki nga xam ni tamit Waalo moo ko ñor képp ki nga xam ne Sénégal moo ko ñor kon ku lim da ngay juum. maa ngi félicité ñëpp vraiment di remercier aussi sama coordonnateur Amadou Lamine Sey bu Asa Jonn bu Cago Massar Diaw ku ñoom ñëpp maa ngi leen sant Seydou Fall kullim juum kon donc daal vraiment loolu laa amoon lu may wax di leen remercier di remercier tamit sama collègue yi nga xam ne tamit ñoo nekkaale woon fii à Dakar Dem Dikk bokk ci campagne bi mois muy les conducteurs muy les receveurs ñi ma àndaloon ñëpp dem pour jàppale président maa ngi leen di sant di leen gërëm ku mel ne Ibrahima Wade Seydou Fall juum loolu laa amoon laal di sant sénégal yëpp di leen wax ni leen ñun ay ndaw lañu ñi ngi tàllal loxo ñëpp di ñaanal tamit kilifa diine yi kilifa diini yi tamit maa ngi leen di ñaanal bu baax a baax yàlla leen yàlla bàyyi suñu kanam mu yàgg loolu te wér di sant nag ki nga xam ne tamit mooy sama kilifa fii ak muy Serigne Dramé kooku moom yàlla ko yàlla fay yàlla na yàlla nangu ay ñaanam ku am yitte la maa ngi koy sant di ko gërëm di sant tamit sama papa bi nga xam ne tamit moo ma yar muy Majaw Xor Mbeng nekk sama turandoo nekkoon sama conseiller ànd ak man ci campagne bi ba mu jax tàkk ak képp ki nga xam ne mbokk la rek jàppoon ci rek maa ngi lay ñaanal yàlla yal na yàlla defal la jàmm yàlla na Sénégal jëm sa kanam politique bi nag ñu bañ jàppee ko ay noon ñu xam ne ñun ay sénégalais lañu fépp fu nit mën a nekk da nga gëm ni yow da nga war a soxli sa gox da nga gëm ni da nga war a jàppale say ndaw na nga gëm ni danga nga war bokk si ñuy développer Sénégal loolu laa amul ma di leen sant yéen waa www euh, senclip point com yal na leen yàlla fay si liggéey bi ngeen def nii yàlla barkeel euh, site bi ba lépp li ngeen ci yor yàlla defal leen ko pour terminer daal vraiment maa ngi remercier aussi Mohamed Diémé manuma ko fay yal na ko yàlla fay c'est un jeune engagé et dynamique yal na ko yàlla jàppale di santaat Sénégal yëpp ku ma limu rek dama juum maa ngi sant yàlla di ñaan yàlla ba incha allahu rabi yàlla may